combar seer na 1500 lañ jëndee tey tamaate 1000 francs jaune rouge moom kenn waxaale ko mi ngi ci kilo 4000 seet na nag te marché bi doxagut nit ñi yoruñu xaalis bëgg nañu mais yoruñu waajale ni lépp ginaar kenn du laal 3500 4000 daa métti ci jaboot ñooy jaay ñu dimbali wàññil ndugg mi jaboot yi mën mën koo mën cee jënd togg kenn ku ne sa kër ngay yóbbu nañu wàññil ndànk wàññi njëgi ci poos yi moo bariwul xaalis bi moo bariwul te bëgg a lekk. soble bi dafa xaw a seer pomme de terre bi xaw a seer dagg bi tamit dafa metti waaye macha allah client yaa ngi ñëw du ñu ngi wuyu waaye marchandise bi daa seer dañ kaa war a wàññi waa kay 8500 lay jar. 5000 6000 ba tey soble bi moo tane ndax soble France bi ay 19000 20000 jar na ko fi dem ba 15000 bii moom kon ko ngi door a génn jar na 8500. waaye macha allah ah solo bi baax na waaye nag bu ñu sañoon nag mu gën kaa ñu gën kaa wàññi ak pomme de terre bi pomme de terre ngi ci 8000 mi ngi doon jar ay 12000 10000 waaw. Ah, waaw alhamdulilah maa ngi ci gis sama bopp moom. waaw tàmm nañ ko ñu ngi ciy gis suñu bopp de macha allah ay kaani salade yooyu yëpp dañoo seer ak oignon yooyu yëpp dañoo seer waaw mu tàdd rek ak yeneen yu sew yëpp dañ dañ kaa xaw a yokk dañ kaa yokk da xaw a yokk sax dañ kaa yokk